salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa hip hop balaa dara abonné wu leen bës cloche bi daal di bës pouce like bi ndax soxla nañ ko moo tax YouTube di référé suñuy vidéo page Instagram bango mafta baabul ak benn F tey ñu ñëwul leen ci Omzo Dollar new vidéo bu tudd Gana waaw vidéo bi nag Gana ñëpp ñu ngi naan Gana Gueye la wala waaw moom la ndax dafa jël tour gànn bi maanaam référé ci coupe du monde bi ne dalu xelu gànna Gueye moo tax bii coupe du monde bi dugg quoi xam parce que Idrissa Gana Gueye cadre la ci équipe bi mais boobu tamit mi ngi référé ci Dip Doundou Guiss parce que son bi di bu naa ne Dip moo ko moom tamit ak koo xam ne rek classe nga ko wala képp koo xam ne amal naa yow biif mu ne la bul dal xel bay jàpp ndigg comme Idrissa Seck Idrissa Gana Gueye ci coupe du monde bi dal xelam moo taxone mu taxaw ci poto bi ilek mu suivre mu japp ndigam ba bal bi dugg xam nga mais bu fekkoloon dala woon xel nekkoon cadre ba ba dal am mën am mu dal xel ba ba ba concentré wul kon du japp ndig loolu référé wu quoi motam mu tuddé son bi ganna pour que gaay nek ci mouvement bi ñom diib ak kep ko xam yang koy clash rek nga baña nga kone li liggéey quoi te baña dal xel ba wara mëna mën yaakaar na yow xam nga war nga mëna def lo neex ci ci ci ci mouvement bi mom mi fi même ci refrain mu waroon ngaa liggéey waaye nga taamu soxor lu tax nga soxor lu tax ma soxor man dama jàpp ne dib lay wax la mun naa juum mun naa juum gaay mun naa juum xaw ma ba léegi mais yaakaar naa texte yi soxor lay wax xama ci ego trip la quoi une façon de faire de l'ego mais dafa jël maanaam musicalité afrobeat comme naaje bi comme que xew li ma la wax ci xàkkil rek son bi mu génnee fan yee tuddee ko wiri wiri xam nga te mu ànd Atina mun naa ne Omzo même son bi même même même style bi la jël mais fii mon naa ne day toppandoo euh, whisky style whisky la jël quoi hakil fee mu jël ski eh, style tout tudd sax Burna Boy so je sais pas ndax loolu c'est quelque chose de bien mais lu mën a wax rek booy toppandoo ñu ko aay bu yàggee xëy na peut-être tu tires à l'excellence xëy na peut-être looloo tax parce que lii du ma ne rap quoi xam nga dama ne dama naaje beat naaje beat lo quoi naaje naaje song lo quoi xam nga même bo xolé ci couleur yi euh dañoo vif quoi ko rek maa ci waxtana sama ben xarit ñu naan ko Tamsir mu may clash quoi nan ma xam mom moy lool mu nan ma léegi bo xolé vidéo boy ñi ci ëpp dañuy jël couleur bu bari quoi diko def ci sen background yi xam nga di topono Nigérian yi affaire yooyu noonu mané ko non c'est normal ñu def lool parce que lool moy wane ne ñom ñu ngi jima avancer avancé di ndóorle di jëman di jëman nduroog au moins naaje musique bi nga xam ne mi ngi dem mu ngi jaay ci extérieur kon ñun Sénégal ñi nga xam ne ñoo jëloon troisième ci ci ci bu yàgg ba bu ñuy góorgóorlu ci vidéo yi ci vidéo yi xam ak son yi c'est bien quoi xam ndax loolu mooy tax affaire bi di follow même bu fekkee ni ci en terme de population Nigéria ñoo ñu ëpp moo tax ñu def vente yu bari ñoom ñu mën a dund seen art ñun quinze rek lañ yaakaar naa Nigéria ils sont de plus de cent cinquante million d' habitants Sénégal ñu ngi ci quinze millions jëm seize millions donc différence foofu la quoi mais qualité musica musicalité bi yaakaar naa ne booy ñu ngi def jéego bu mag quoi muy Omzo muy Hakill muy Dip Doundou Guiss muy Ngaaka Blindé muy One Lyrical ak yeneen ñeneen ñaa ah. xam nga soo ak nit dof ak gars yëpp ah, ñuy jiim même jéejee yi tam nekk Buzz Lab bërki dem génne na vidéo te vidéo bi seer naa ko xam nga xaw na duróog tuuti bu Omzo bi waaye gis naa ne ñu ngi improver ci côté image quoi ci côté vidéo xam nga ñu ngi ciy amélioré bu baax ci côté son tamit ñu ngi essayer quoi noonu la continuer leen dina baax incha allahu rabbi so am na keneen tamit ku ñuy wax euh, Nara Pire tamit gars yi bëri xamuñu ko mais tamit il fait un boulot extraordinaire dinaa ko indi bu next vidéo yi won leen ko pour gars yi xam ko quoi am nga ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi def lu bëri pour jëm a fës fësal rap galsen bi so vidéo bi dans l' ensemble xam nga mooy loolu daal c'est image yi rafet na trop trop trop trop xam nice na comme euh, ku ko filmer mais chapeau quoi parce que at least xam nga yaa ngi wane africanité bi yaa ngi wane quelque chose de naturel di wane lu bari ci la nga xam ne tey jii nii ëllëg moom tey jii mun na jaay Sénégal c'est normal xam nga parce que c'est vidéo loolu la image loolu la da ngay jéem naturel ba plus nga wane sa image dëkk pour nga mun koo jaay dafa am benn affaire bu ma seetlu maanaam hmm, sign bi nii nii mais chinois bi nii xam ma xam ma moolu xam lu mu doon mais yaakaar naa ne gis naa Omzo di ko di ko wane lu bari xaw ma brain la la créé wala lu bees mu créé loo xam ne xam communiqué gu ci quoi mais xëy na peut-être lu bees mais ce serait génial quoi parce que rafet na trop so li ci topp mooy maanaam maanaam ñu bañ a teg seen tànk rek te xam ne affaire bi liggéey la quoi ku gën a liggéey rek mooy fayeku affaire bi ay clashante c'est normal ci la bokk mais il faut essayer de nga jéem a xool yi lan moom manqué ci ci industrie musicale au Sénégal lu ba tax mbalax bi dominé woon maanaam li ñu naan maanaam ñu yéen ngeen jéem a xool yi new generation bi nan ngeen di def ba mën a dund ci seen aar ba mën a dund ci seen musique di tegu ci plateforme yu bees yi parce que musique léegi loolu laa ji ma ji fexe seen son yi nekk iTunes seen son di nekk ci Spotify ngeen streaming xam nga ci ci ci plateforme yëpp waa bu ko defee ki nekk bu ajak mun laa suivre xam nga loolu mooy musique quoi te bañ a def si Instagram bi ak YouTube rek ñu bàyyi la ngeen seetaan vidéo bi ñu war ak yéen xam gën a leeral affaire yi sign baa ngoogu Instagram baa ngoogu Omzo Dollar dem na ngeen follow ko ñu bàyyi leen bismillah Batman music. Mm, life better. da ngay lijjanti sa bopp mais do musa a xam lay dencal eh, borom baax laa mais daal yee sama swag sama style soo xool sama flow lu may rap soo xool bala leen c'est normal ñu soo xool kon baby bul ma jaay graw man ay cuuraay yàngalu sama son de daw nga gis ay chinois yuy lëmbalu na baby bu ma jaay graw man ay jinjeer yàngalu ma Summer's on the down, I guess I not lama di ah, nigga, what my book on the hot, Mununga bar, medanga tan the sofa. Drama homo yo, book on the sofa. Mununga liga, medanga tan the hot. I say, Batman, me is a fresh ni penguin. December, lale, may I solo you fans, man. Yum, yup, life, and you mel ni fans, man. Sorry, she no gene cars, but mel ni ten ten. jala Dulu dul yàlla dulu dul defu defuma dara xam rabar yi ñu suul en tout cas pas moi dal xel jàpp digi ba mel ni gaana eh, Ghana, idrissa gaana dal xel jàpp digi idrissa gaana dal xel jàpp digi idrissa gaana dal xel Idris digi idrissa gaana Ghana, Idris Ghana, dal xel jab digi Idrissa Ghana, dal xel jab digi Idrissa Ghana, dal xel jab digi Idrissa Ghana, Ghana double nigga Idris Gana Life better, life better, life better Nanga ngay lijjanti sa bopp doo musa xam ne di luñ lay dencal borom baax la mais flag ma soxor age bon bac pasa ñoo soxor nuus ñëpp mel ni paa bu soxor li ma jóge wasi kàpp soxor kon nigga bu ma jaay graaw lu ngay ñàngal yëngalu ma mm, rappeur clash yeeg nañ déglu sama son yi di lëmbalu na nigga boom, jack, grab, long, Gij rap man die angelo ma Rapper je klaar jij de gloes aan mijn son Je die Ah Nigga wat oh, uh, me poep aan de zorgor Mijn de baag met aan de tanden zorgor Grima gauw me jouw poep aan de zorgor Mijn de liggen met aan de tanden zorgor yàlla du ñu dul yàlla du ñu dul yàlla defuma dara xam rabar yi ñu dal xel dab digi ba ni gaana gaana idrissa gaana dal xel dab ndigi idrissa gaana dal xel jàpp ndigi idrissa gaana dal xel jàpp ndigi idrissa gaana Ghana, Idrissa Ghana, dal xel jàpp digi Idrissa Ghana, dal xel jàpp digi Idrissa Ghana, dal xel jàpp digi Idrissa Ghana, eh Ghana, Ghana سجانة قال خيل جاب ديجي إدريس سجانة قال خيل جاب ديجي إدريس سجانة I say life better, life better, life better, life better, life better. Bad man music. aa ah, gars yi ñoo ko gisandoo ñoo ko gisandoo standing ovation laa koy jox ndax Omzo improve na xam nga ko xamoon Omzo démb ci rap nga ko xamee ak yee beneen façon musicalité xam nga mais bii koo xool xam ne ci côté naaje bi la gën a focus xaw toppandoo style Wizkid c'est normal man j'ai j'ai rien j'ai rien contre ça xam parce que man musique dama japp ne lo fi def rek sa waay nit def nako ba pare style bo fi indi rek nit ni nako ko pare flow bo fi indi nit indi nako ko ba pare toppandoo la mais boo koy def na nga fexe ba bokoy def mu rafet gan la lañ ñëwoon tey Omzo la won ba benen yoon abonné wu len bés cloche bi bés pouce j'aime bi ndax soxla nañ ko inshallah jere jere